asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, bokki bokki bokki taalibe eh, bokki taalibe eh, bokki taalibe maa ngi dégg ay yëngutu ci dëkk bi yoo xam ne yu kaw la ah, lu mën a xew daal